Walfadjri ci bis bi ñuy màggal sañ-sañ tasub xibaar ci àdduna wërngal képp ren nag mu nekkoon at bu jëfe ci ñoom ginnaaw yenn ci seen ay taskatu xibaar yoon teg leen loxo wante itam seen signal ya ñu jotoon dagg kër jite rédaction ba moom mu ñuy xamal si wàllu sañ-sañ tasu xibaar di liberté de la presse Sénégal dellu da ci ginnaaw lool. gis nañ fi ay journalistes yu ñuy gazé yu ñuy dóor ci terrain bi coupé nañ fi signalu Walfadjri Walfadjri signa fukk nañ fa suñu signal ay bés yu bëri mu nekk manque à aussi bu metti si euh, ci administration bi si commercial bi gën a kii nag metti nag mooy ñu ñu privé de liberté jël suñu mën naataangoo journaliste tëj leen tëj nañ fi Pape ale Niang voilà te Pape Pape Pape Ndiaye sunu collègue actuellement mi ngi prison Thioro Diouf tamit di ak ñun fii nekk sunu collègue mi ngi prison te loolu man dama jàpp ni c'est une tâche noire. bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom jot na ñiy liggéey ci bërëbu média yi booloo doon benn ngir jàppalante ci suñu biir. soldat bi waroon am si suñu biir ñun journalistes yi man gisuma ko. gisuma ko rek ci pas rek ci kaawu journaliste Walfadjri yi non non taxul may wax même yeneen journaliste du naataango journaliste yoo xam nekkuñu woon sax Walfadjri ba ñu nekkee si ay jafe-jafe man sentiruma quand une union sacrée autour d'un combat mais bañ fi jàppee Madiambal Diagne mais organise fii ay marche def fi ay journée sans presse mu nekkoon affaire bi nu lutte commune tey ci àllarba bi ñetti fan ci weeru mai di bis bu ñu jagleel sañ-sañ tasu xibaar ci àdduna warngal képp wante bërëb bii di Walfadjri tiis na leen lool te ñenn ci seen ay taskatu xibaar ba tey ñu ngi ci kaso bi ak seen signal ya ñu jotoon dagg ci at bi bi ñu sukkandikoo ci seen rédacteur en chef jot na média yi ànd doon benn ndaxte mbooloo mooy doole